rapport nga amoon Idrissa Seck. waaw euh, Idrissa on a un rapport you, you, you, you, yu cordiaux mhm. parce que Yalla mi ngi ñu boole euh, bi nga xamné ci la ci la am jafé jafé ak yoon. Mhm. ma jeune avocat à l'époque j'avais peut-être 28 ans. Mhm. Euh, comme dama xamoon euh, ba Diattara parce que ba ku ko xam Idi xam yankoba ndax euh, moy bras droit donc yankoba man ño bokone nek bi ñu nekkee université donc euh, yalla def mom bi Idi amé problème bi mom momo ma woo alors mu ne ma voise comme on s'appelait euh dama bëggone nga jappalé grand bi mané ko non y a pas de problème euh, c'est comme ça que je suis parti le voir à la prison ñu waxtan ci il était content déjà euh ci ci jàppale boobu après nag foofu la suñu xameel tàmbali. Euh, donc de tout le temps bi mu nekkee prison chaque fois ñun dañuy ñëw ça, euh, seet si ko euh, xool lu mu def aussi ci dossier bi noonu lañu dem ba miinante nak finalement il m'a conseillé de faire la politique pour ma dugg ci parce que xamoon na ne man mosuma politique. alors yalla def jamono euh, non jatara créé won ben parti bu tuddoon Fidèle. Euh, mu ne ma da ngay dem nga tambalé fofu ci fidèle bi nga dugg fofu nga commencé militer donc fofu la tambalé bi ma ñëwee je me rappelle euh, fa laa fekkoon non Mame Mbaye Niang mi nekk tey euh, ci bureau politique bi donc bi ma ñëwee ñu intégré ma ci bureau politique bi euh def ma finalement porte-parole de sorte que euh wax deug yalla amna yu bari yo xamné bi Idrissa nekkee prison ñun ñoko doon doxal ci réew mi dem nañu fu ne.

avec euh, le mouvement M6 mm. avec ses amis non Pape Diouf avec euh, Omar Gueye parce que nous bokkuñu beaucoup de parti beaucoup de ci mouvement mais nous xamoon que ne ay Donc, Idrissa lañ woon donc ñooñu le Idrissa composé le Réumi, qui est devenu secrétaire national et puis tasaare ñu aussi dans les départements hmm? secrétaire national voilà donc euh, après moi j'étais chargé des affaires juridiques Réumi. ensuite j'étais vice-président à Dakar parce que Walifal Fall moo président donc à l'origine non le Réumi commençait. commencé donc non le ñu di dem après il y a eu euh, ce rapprochement Avec euh, PDS bi bi Idrissa ak Ablaye Wade alors nous euh, désigné plénipotentiaire plénipotentiaires au niveau de Réumi au niveau du PDS pour nous voir pour voir comment la ñuy l'élection ci 2009 parce qu'on était en 2008 quelque chose comme ça 2009 alors au niveau du PDS les plénipotentiaires il y avait Bokar Sadir Khan, amon Bokar Sadir Khan, amon Touré amon Ousmane Masek Ndiaye Amonna euh, Omar Sarr ak Souleymane ils étaient cinq euh, Nous, on était un peu plus que ça Nous, matoon nañu ay Il y avait man Wali euh, Pape Diouf Omar Gueye Ndeye Maguette Dieye euh, Yankoba ak Déthié alors euh, bi ñu demee waxtaan pour xool nous ñuy àndee ci élection yi waxtaan bi parce que dañu rencontré woon waa PDS yi ñoom ils étaient réticents kenn beaucoup ci woon Idrissa dellu si sauf Souleymane Ndéné Souleymane Ndéné moo ci xawoon d'accord ci loolu mais Omar Sarr moom il était le plus catégorique ne du bon vraiment bu ñu naree defaat liste yi day compliqué du mën a donc finalement ça a capoté après, bon, on ne ce ce parti ci élection yoyo nous à Dakar on avait fait euh, une liste départementale qui ci a amené à ñetti siège un conseil à la mairie de Dakar mu ou man Wali Fall ak Mambay le fils de de HLM donc nous avons ñoo représenté euh, le réuni au niveau de la mairie de Dakar. D'accord. alors bi ñu fa euh, Khalifa ma m'a désigné pour me présider la commission des affaires administratives et juridiques. Bon, Khalifa, moi, si nous nous, on est venu, Djogé Réumi, aussi, il est venu, Djogé aussi Sénégal. Nous avons gagné cette élection. Donc c'est comme ça que finalement j'ai connu également Khalifa, am aussi mom ak rapport en 2011 il a quand même arrêté Réumi, créé ce mouvement Mais téréwul euh, Mes relations avec Idrissa wax elles étaient excellentes. dañ je me et d'ailleurs, créé le mouvement Je me ma njëkk mhm. mu félicité ma mu ne il pensait à ça pour créer un mouvement parallèle. Mhm. à réew mi confié bon ensuite on a discuté ci nan élection 2012 bon de toute façon comme je ne suis plus seul il va falloir que ma le bureau exécutif euh, du mouvement nga waxtaan ak ñom bo convaincre problème sinon aussi c'est c'est le bureau qui décide c'est comme ça qu'il nous a reçus aussi avec le bureau et tout il a discuté avec les gens bon voilà le mouvement après concertation nous d'accord qui accompagner ko ma son assistant ko ko ñu c'est après que d'ailleurs euh, ma congrès d'investiture à Pékin. je devais prendre la parole donc c'est comme ça que ça s'est fait. Nous créé l'IDI 4e président. On était quatre ou cinq parce qu'il y avait mon mouvement, le mouvement de Laminba, le mouvement de Bakardia et le parti euh, de Serigne Mamoun RP. Donc nous avons constitué l'IDI 4e président. Bon, malheureusement, on a, nous avons vu l'élection, nous la campagne place de l'indépendance. D'accord. Voilà. <laughs> D'accord. Euh, Donc, c'est ce nous avons dit, c'est que nous aussi, ses qualités humaines. Ah waaw nit ku am ay qualité humaine extraordinaire la voilà li ñu koy reproché daal souvent mooy peut-être ñàkk euh, doylo aussi xelatu nit ñi mom peut-être bopam xelatam moo koy gën doy dal souvent waaw lool dal mom xeyna moy mooy mais bu weesoo loolu nit la ko xamné je pense que potentialité yi mu am Sénégal mëna guñ ko xam tank xeyna jité wu ko. mais mais naka nga gisé communication bi bi Idrissa Seck def hmm. euh fan yi polémique bi mak Baka Jérusalem maak Ni une erreur de communication ni ne Idi tàmm na loolu xam lu muy def yow nak nga ko Wow, waaw euh, c'est vrai que dans le fond c'est-à-dire que ci wax ji ci bir fond wax ji. Mm. parce que pour man que mu wax du du lu extraordinaire parce que tàmm na wax. Euh, tàmm na aussi wax ci problème mu euh, politique yi nga xamné moy mo am Sénégal ak ci aduna bi.

te nak aussi ah yalla may na ko xam-xam aussi ci walu ndax ñep nangulon nañ ko ko ay serigne sax nangulon nañ ñi am xam-xam ci diine waaw legi nak euh mu wax ñun leer nañu ne am fu mu ko tek ñeneen euh, ñu aussi la lañu wax xeyna na amna am fu ñu ko tek donc am ko xamne joom na ci appréciation xawma ndax mom la wala ñeneen ñi la mais li leer ba leer moy la mu wax man dégg na ay yeneen borom xam-xam aussi deggal ko deg nañu ay borom xam-xam yu dëggal li wax gis nañu aussi de l' autre côté ay yeneen boroom xam-xam yu ko weddi maintenant nag li ñuy naxarlu ñun ci mbir mi mooy quand nit ñi li dañ ci xaw a ëppal. dañ ci xaw a ëppal nag parce que dafa mel ni aussi am na lu laxasu ci suuf. Mm-hmm. parce que pour ñun wax ji débat d'idée rek la. débat d'idée nag ku ne mën na joxe xalaatam mu yem fa. Mm-hmm. waaye ñun gis nañ de l' autre côté am nay nit yoo xam ne non seulement yemuñu si débat d'idée bi mais dañ ci yokk ay mbir pour diingat diingat. idi nak ba muy wax waxuloon pour diingat da don wax rek parce que xam-xamam la joxe waaw moy li nga wax ni affaire yi legui dafa upp loxo parce que gis na ni parce que dafa am lu ci laxasu wa gis na ni eh, seigne Mbaye simansou genn wax wax idi wax ci idi et tout affaire yi commencé déraper ñëw indi affaire mourid mhm. tidiane mhm. lolou yep mom bo xol moko indi lolou lañuy regretter en fait pour man indi wuko dedet man je ne pense pas que moko indi dedet Idrissa dañ ko laaj pour man lima gis

di ci yokk li nga xam ne bokku ci parce que pour man yokk nañ ci lu ci bokk parce que dégg naa sax ku wax ba ne ko moom franc-maçon la xam nga loolu du woon débat bi du woon débat bi moom xalaatam lañ ko laaj mu wax lim ci xalaat lu jógee ci science moom li wax science la waxu intellectuel la catholique catholique sax mënoon na ñëw ñooñu mais naturellement ñi nga xam ne dañu ci yokk ay ay ay affaire méchanceté naan mécréant la ak yu demee noonu mhm. mais mécréant moom ñaam ñëpp xam nañ ne wax dëgg yàlla Idrissa du mécréant quand même ku xam Idrissa xam ni jullit axan la. mais li tax ñu koy wax loolu est-ce que du li gars yi génnee ni moom ku ci mel ni Jacques Attali nekk juif bu mag xaritam la day day fréquenté ak moom est-ce que du looloo tax tamit gars yi wax loolu. waaw mais loolu yëpp mooy li ma wax rek sa à dire que gis nga bés booy jël def ay déduction wala ay rapprochement rek yaa ngi génn ci contex bi wax ji li mu wax moom dafa fu mu ko teg. dafa am fu mu ko teg mais ñeneen bu ñuy wax nañ ko teg foofu rek mu jeex ñu jàpp ne débat intellectuel la mais mais fii gis nañu fi ñoo xamante ne nii ñi ñuy wax ibaadu rahman mais ñoom bokkuñu idéologie ak ak ak ñeneen ñi ñuy wax murit ak ak kii ñoom ñëpp ku ci nekk am nga sa perception déjà ci diine ji suite yeeg sunnite yeeg yooyu problème yëpp lan moo ko indi divergence point de vue ci ci ci diine ji nuñ koy interpréter nuñ koy xalaate alors donc moom aussi li mu wax mais keneen aussi bu ci bëggee wax aussi mais na interpréter na na na na expliquer raisonner na expliquer raisonner moo gën ñuy def ay déduction naan mécréant la bu ko kenn jàppalee. pour daal ñi def déduction loolu yëpp pour man am na lu ci laxasu. fu mu toll nii guerre entre non leer na ne leer na ne. te déduction yi sax c'est pas des déductions gratuites. pour man y a des intérêts dedans. y a des intérêts am na intérêts yu ci nekk. parce que non c'est pas possible ñoo xam ne seen yoon déjà seen yoon newu ci sa bu ko neexee mu taxaw wax lu ko neex c'est son droit sénégalais là n'est homme politique en plus maintenant Kenen, bu ko bëggee opposer des arguments contraires fa waxé won na koku démé fof mu wax indi ay argument mais nak bu dee dañu génn cadre euh dugg ci ay déduction kii ay ay ay tiré ay conséquences ci limu wax ak yu demee alors que wax deug yalla buñ taxawé fi fii bëgg na utiliser du julit xam nga loolu aussi déjà du yofu julit parce que julit déjà sa sa li nga war a jëkk a def mooy mooy maandu parce que kenn xamul diggante yàlla ak ak nit man yow noo xam sama diggante yàlla lan moo ci ne munoo ko xam bay wax naan du ma jullit wala wala mécréant la. si dee wax loolu. ah si ah ñoom ñoo mais xam nga loolu du du wax ju objectif. xam nga luy wax bu objectif mooy ñu ne Idrissa li mu wax tegul fen parce que l' argument contraire mi ngi nii. suraat bi moo ko wax verset bi moo ko wax. wala wala xadis bi wala nangam. donc il n'a pas raison mu jeex. loolu rek mu jeex mais bu ñu ci c'est parce que véritablement pour nous, il y a soit de la méchanceté wala am na yeneen objectif yoo atteindre voilà Merci de vous abonner à Pikini Productions. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.